billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi sant yàlla julli sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu te di leen baal wax te di leen ziyaare ni ñu leen ko waxe woon rek tey ñu fas yéene ñëw ci gis bi nga xamante ne ci lañuy ñuy tëj jataay yi nga xam ne mu assasatul Wafa'i bi huquqil iman moo ci doon ànd ak yéen di weeru koor gi tàmbalee ba tey di ñaar fukkeelu fan bi ak juróom-benn ñu dalal fi ay waxtaankat yu wuute ci ay thèmes yu wuute di am yaakaar tamit ci ne ñi nga xamante ne dalal na leen ci jataay bii nii ñu bokk ñun jàngat ay tomb yu wuute ci wàllu diini ak ci wàllu àdduna lañ ca bokk jàngat bi ñu fi indi yàlla na ko yàlla def muy suñu njariñ te yàgg la tey nag ñu fas yéene mottali jataay yi ànd ci ak sëriñ Abdou Samane Mbacké ànd ci tamit ak sëriñ Abdoul Aziz Mbacké ànd ci tamit ak sëriñ Khadim Mbacké moom sëriñ Moussa Hafsa ànd ci ak sëriñ Ahmadou Mbacké Murtada ànd ci ak sëriñ Mouhamad Mbacke moom sëriñ ko sabbu jamil su ko defee incha allah euh, sëriñ Bassirou Mbacke bu fekkente ne amul benn gàllankoor rek incha allah mooy ñëw tëj jataay bi indi kàddu yi nga xamante ne moo bàyyi ko ci sëriñ Abbas mi fi toog toogaayu borom daal mu waxtu te jataay bii ñu koy def ci ndigalam euh, xam naa ne ñuy jéggul rek ci annoncé woon ne sëriñ Cheikh Soy moom lañu waroon dalal fi jataay bi tey mu ànd ak ñun waaye amoon na yéene ñëw waaye yàlla moo ko dogalut dafa xam gàllankoor boo xamante ne moo ko tënk ba tax mënut a ñëw ànd ak ñun jataay bi tey jii xam ñu ñaan yàlla fayal ñu ko fay ko yéene ji mu amoon ndax bi ñu ko waxee jataay bi da cee sawaroon lool waaw amoon ci yéene lool tamit waaye nag suñu borom moo namoon ne incha allah xam naa ne du ñàkk. beneen jotaay incha allah mu ànd ceeg ñun yàlla na ko yàlla def kon ni ma ko waxee rek incha allah dañuy fas yéene njëkk a jox kàddu gi sëriñ Abdou Samane Mbacké su ko defee danañu indil incha allah jamono ji nii nga xamante ni noonu lay doxee ci xaw a doy lool ñu baree bare xamatuñu fu ñu teg seen tànk day aajowoo saa su nekk nag ay nit ñi nga xamante ni yàlla baaxee na leen. ñuy fàttali ndaw ñi fi nga xamante ne fi lañu war a teg seen tànk ba mën a am mucc tey ak ëllëg loolu di nekk loo xamante ne lu am solo la lu ñu war di fàttali saa su nekk la kon loolu moo tax ñu tànnoon loolu tey ngir tëje ko jataay bi kon li ñuy def rek moom mooy dañuy njëkk jox kàddu gi sëriñ Abdou Samane Mbacké euh, moom sëriñ mu dafa balla ni euh, nga xamante ne noonu la àndee woon ak ñun ci njàlbeenu jataay yi jataay bu njëkk ba mu àndoon ak ñun fii nii ubbi ko ci turu sëriñ Abbas jaare ko ci sëriñ Bassirou Mbacké imam mi nga xamante ne moo daan ubbi jotaay yi yàlla dogal léegi mu koy yabal moom muy ñëw di teew teew toog di taxaw taxawaayam ngir ubbi ñu jotaay bi ni mu ko defe woon ko ni mu ko defe woon ci njàlbeen ga te ànd kook ñun tamit ci biir weeru koor yépp jotaay yi yépp gis nañ ni li jamono ji xat-xat ak li yitte yi bari bari jotaay yi yépp moom da ko ànd ak ñun ba tey jiiti ci mbuj gi mu ñëw àndaat ak ñun fas yéene ko fas yéene ànd ak ñun tëj incha allah ñuy ñaan yàlla fayal ñu ko te gën a dëgëral taxawaayam kon li def rek moom mooy dañu jox kàddu gi sëriñ Abdou Samane Mbacké su ko defee mu ñëw ñu si dénkaan yooyu <coughs> a'udhu billahi minash shaitanir rajim a rahmani rahim rabbi ishrah li <coughs> bismillahi rahmaani rahim rabbi israh bi dawaami sadri sharhan bi akun misla badr akshif duja qalbi ya qadiru ya man wa tadbiru taqdiru ij'al kitabaka nuusi alim walihab ma faaqa dhanni man ulub allahumma la sahla lana ila ma ja'altuhu lana sahlan subhanaka in shi'ta ja'alta sahla sahla allahumma la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatuhu noo ngi nuyu mboolem mbokk yi jullit yi fi teew yépp ñoo ngi siyaare ñépp ñoo ngi ndokkal ñépp ñoo ngi ñaanal ñépp jàmm ñu ngi tàmbalee di sant suñu borom subhanahu wa taala mu ne baax woon daaw ñu teewoon jotaay bi ren baax baat na ko bañ teewaat ko ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dimbali ñu bu déwén ñu teewaat jàmm sant bu baax a baax a baax mbooloo mi alwafa leen gërëm bu baax di la ñaan bu baax damay wax toujours ne tànn gi ñu tànn weeru koor yi di ko ci def nekkul loo xam ne hasard la ndax weeru nekk man na mën nañ ko taxawal di ko def waaye tànn gi koor gi moom am na benn maysa bu ci am loola mooy sunu borom subhaanahu wa waxtu ne lay jàppale ab jullit waaye weeru koor a ci raw waxtu ne lay dimbali ak jullit waaye weeru koor ci raw waxtu wane lay ñaanal ab jullit waaye weeru koor ci raw lay nangu ñaan waaye weeru koor ci raw kon bañ ko tàmbalee ba léegi mu nekk at yu baree baree bare li ko mën a gàllankoor bare lool li ko mën a téq bare lool muy dox ba nëg ni kon am na suru bu ne ci biir loolu mooy suru sawru ramadan bu baax bu ñu fàttaloo ci ci ginnaaw rek na kero bi yonent bi alei salaam xeex yéefari ci xeexu badar bisu weeru koor weeru koor la doon weeru koor la doon la woon julli di nekk ñett téeméer pour ñett <coughs> yéefar yi ñett ñett junni ñu xeex ak ñoom gañe loolu kon am na sekkara ba jën kere bi ñu bi makka weeru koor la woon julli di ni woon doole lool yéefar yi bari doole lool bari xannaay lool ñu xeex ñoom gañ leen ci weeru koor la woon kon daa mel ne suñu borom subhanahu wa taala am na jagle goo xam ne jagleel na ko julli ci weeru koor kon tànn gi ñu tànn koor li waxtaan yi euh, lu am solo la euh, may wax toujours ne ñun taalib yépp dañu def dañu engagé wu ci wetu sëñ Tuubaa jox ko seen bopp ci jiyaat ji nga xam ne moom moom lay def xam nañ ne bi ñu ko accusé wax ne ko dangay ngay xeex jihaat sëñ Tuubaa mu mimut na rey xeex jihaat waaye def leen da ngeen juum ndax ngànnaay yi ngeen foog ne moom laay xeexe man xeexuma yoonu ngànnaay man nii ujaadu uma bi tuqaa abdan xadiman wal mu'min shahidu man ragal yàlla xam-xam ci laay mooy samay ngànnaay ma xeex jihaat jooju sëñ Tuubaa di def itam ñu war a xam ne du jeex ba dinay tukki ba dinay tukki ak réer di fi am ba nuy tukki ñu gëmal yàlla di fi am kon jihaad jooju dafa nekk éternellement dafay continuer ba nuy tukki nit nag bu fekkee dafa de dafa déclaré jihaad nga ñëw jox ko si bopp ne ko damaa ñu dimbale la maa ñu jàppale la kon ngànnaay ya muy xeexe danga ko war a yor nit bu dee xeex yor yat nga ñëw di ko dimbale dangaa wut dangaa fàq yat comme moom buy roye jaasi nga wut jaasi comme moom bu yore fetal nga fetal comme waaye bu fekkee dafa yor fetal ba mu yor jaasi yow nga nekk sa loxoy kese kon day man da ko sot ndax dañ lay boole ci limbu soldaar yi te nga naa loo xeexe yoroo ko kon moom bu amee defar yow ñu ko kosi nga bokk kon jihaad yi Sëriñ Tuubaa déclaré da koy def ku ci bëgg bokk ku ne war ngaa nangoo xamlu war ngaa nangoo xamle boo tolloo ci xamlu da nga fexe ba xam boo xamloo ba noppi da xam le ñu loolu mooy di wat taalibe yàlla def nag borom dëkk bi di Ceerno Ibrahima Faati moom général jiitoon gerbu ci la bokkoon ba fi jóg ba fi jógee ñu wàcc ñu ko doonante ba ak ci suñu jamono yi tey jële waaye ñii di Al dañ cee bay waar wu rëy rëy waaw tool bi sëñ Tuubaa tobbiloon maam Cerno di ko liggéeyloo ñoom ñoo ñu ngi cay bay seen waaw ba mat sëkk waxtu yi ñëw fii di waxtaan ci koor bi kenn ku nekk xam ne waxtu noppaloo la nit bu xëyee ci weeru koor dana bari énergie waaye lu mu gën a jëm ci ngoon rek gën a jëm tàkkusaan doole bi gën a wàcc waxtu wi doole wàññi seen doole wàññi ko nag sa kattan gën a néew waxtu wala tànn dugg jëfal seen borom subhanahu wa taala loolu kon pas pas bu ma sëkkal kon waaru borom daaru seen wàll bay na ba ma sëkk def ci lam solo mooy <coughs> waxuma sax tasaare xam-xam waxuma ko ndax fii li fi jaar ci ay mawaadee kenn xamut nu mu toll nañu wax ne bibliothèque la maktab waaye yemuñ ci dañoo tasaare borom yi xam-xam. am na ci ñoo xam ne bu ñu ko nag alwafa mën nañoo dund ba gën àdduna kenn du xam ne xam nañ lii kon yemuñ ci wane xam xëpp yemuñ ci yemuñ ci waaye dañoo wane dañoo wane boroomi xam-xam wane ay mara ay maraji yu bare bare yoo xam ne ku bëgg a gëstu mën ngaa dem ci ñoom te ko seeta bu ko tàmbalee ba léegi def ci ba tey bi fi jaar ci ay xew ku ci bëggoon a gëstu tey loola ñor boo ñëwee ci ñoom dañuy jox téléphone boo xam ne boo wootee koo defoon dana jox ay argument yu leer loolu ci ay xam-xam yu leer a leer kon ci feeñal xam waaye dañoo yem dañoo jàll ca gën a dolli ko mooy li li baare woon doomu soxna yi ñoom war na ñoom féetewul ne ñoom mbirum diine képp lañu war a xam loolu bar bar lim nañ dañu war a xam nitu diine war xam lépp ndax kuy def ñëpp war na xam lu bari yemuñ ci xam-xam miraas képp wala xam-xam fiq képp wala frate jàpp ak frate julli képp yemuñ ci mais dañoo am ni mawaat yu bare bare yoo xam ne société bi la concerné kon ab boo ci nekk di dund lépp leen concerné loolu war nga koo xam moo xam santé la moo xam sécurité la moo xam alimentaire la xam lu mën doon loolu lu am solo loo xam ne lu bees jëf yi loo xam ne must am bañ commencé jëf yi ba léegi kon ñoom ñoo ko ñoo ko dugal kon baara suñu baara suñu baare woon doomu soxna yi ñoom lu xam-xam ñu waruñu koo xam loolu dina ko silu ci beneen baras bi ñu dindi mooy barrière yi nga xam ne doon ci diggante kër yi nga xam ne kenn ku nekk fa nga bokk rek ngay nangoon ñoom ñoo am xam ñoom ñoom ñoom ngay nangoo jëm jël ci lañ xam loolu dindi nañu fii yaakaar naa mboolem tarixa ci Sénégal yëpp ñëw nañu ci joxe ci seen xam-xam kon ñoom nangu nañu seen xam-xam nangu xam-xam ne des loolu am solo yaakaar naa ni ñu jëf ko waroon def yaakaar naa dig bi am ci diggante tarixa yi ak kër yi diine yi yàlla mën na ko dindi wala mu daan wàññi ko lool kon loolu liggéey bu rëy rëy boo xam ne ñu ngi leen ci sant bu baax di mooy man dama toujours dama leen dama leen comparé leen comparé toujours waral mooy xam nga asawul kaf yi ay yoo xam ne dañoo gëmoon seen diine nekk ci jamono bi yàq ko yàq ko yàq jamono ju bari tàggante ñu dem ba xalaat ne ñii réew mi doxi ku jaxasoo ñoom day yàq sa ngëb kon nañ daw dugg ci barab làqu fa di fa jàmm suñu borom ndax sooy suñu ngëb daw dugg ci punti punti mab bi seen kaw ñu ne fa lu yàgg kon ñu téeméeri at yàlla sàmm leen ba kenn loru ci kon pas-pas boobee ak gëm gookee ak ne yàlla aare ñoom lay comparé ñu waa alwaxa gi noo jamono jooju meloon bu ma ne Sénégal mel na ni waaye jege na ko ci yàqute jege na ci jaxasoo jege na ci ñàkk gëm yàlla jege na ci bëgg alal jege na ci bëgg bëgg daraja ci nangoo ñàkk kilif nangoo ñàkk kilif téef lépp teg ko fële seen borom loolu ak jagleel la lii moom dama jàpp ne Sëriñ Tuubaa du ko jagleel man tunu baraay waaye du mu nekk ñi fi nekk ñëpp ñëpp lay ndaw nag ñu waroon ñu fekk ñu ne ci leneen ñu war lépp ginnaaw jublu seen borom xam li ñu xam-xam loolu am solo ndax lii ñëpp ci war a jàpp ndax liggéey borom daaw ku am xam-xam te bokk ci charon sax ma margo ci indi alal te bokk ci charon war nga bu rafet war ko ci indi boole ko ci ku amul xam-xam nag amoo xalaat war ngaa ñu déglu na ko déglu bokk mooy ndax dañu almustama sadikul xaay kii wax bu ñu ko fayee fay ku bu ñu fayee ku wax bu ñu ko fayee rek fay ku jël kon ku mënut a participer joxe dara mënoo joxe sa xam-xam mënoo joxe alal war ngaa mën a déglu ñuy wax ngir jar kon loolu ñu ngi ko soññ waat bépp ñëpp na ci jëpp jàpp ñi am xam nañ ci jàpp ñi jàpp ci ñi jàpp ci ñi amul daal na ñëw di ba teew bay mën cee jariñ te yokk mbooloo te ca dolli mooy jamono ji dafa dafa nëb te te te lëj ñu dem ba kenn xalaatu kenn ñu dem ba kenn tëgg fi kenn tànn loolu lu jar di waxtaan te ñun yoonu murid li nekkoon suñu mayuse mooy na ko kilifteef ak na ko topp waaye bu ñu demee ba kenn yëfatut kenn kenn tupatut kenn ñenn ñi sax ñu tànn li ko waral mooy li ko waral ñoo ñooy tànn ndax li ko waral mooy fii yoonu murid yàlla dafay def barke yàlla dafay def barke yàlla def ëpp fit am na ci ñun ñoo xam ne lu ñàkk ak deer mën na ñor ñor kon nangu ci kilif nangu kilif tak sax ci nëgal ñëpp la war a ñun yoon murid ñoo jaram ñu dem ba loolu mel day waajee jeex day wax toujours ne képp ko xam ne aju nga ci maam Cerno Ibrahima yow kilif téef ba na ko nangu ndax moom gi nangu kilif téef ak sax ci nit ma bañ te dafa am ñett wala yenn fii mbir yoo xam ne jàpp nañ li tax ni nangu ñàkk ñàkk kilif téef loolu ca la bokk ba ci njëkk mooy ñi am xam-xam ñu ci baree bare seen xam seen xam jaahiliya ba nangatuñu topp kenn ñi am mbooloo ñi am mbooloo mu la topp leen seen mbooloo jaahiliya ba nangatuñu nangatuñu ci niif leen am alal seen alal jaahiliya bi nangatuñu nangatuñu ci niif leen bu fekkente ne nii ki xam xam-xam tuppatul kenn ki am alal tuppatul kenn ki am mbooloo tuppatul kenn kon yoon fu mu ndax yett yi kat lu yoon laaj na borom xam-xam laaj na borom alal laaj na ak nusu laaj na borom mbooloo bu noppi kon bu ko yoru ñàkkee ñàkk léppam kon boroom daaru mii ñu wax moom bu dee xam-xam rek ci moom la ci moom ndax ku seen tubaa jàngal dana ko doy na li jàng doy na kooku ci la ma xam-xam mën a yem ko jigi waaye xam-xam boo lu ñu bari bari bari bari bari mus koo tee tee dox ndigamal sax ci ndigal sëñ tubaa mu mënu ko tee dox ci ndigalam sax ci kilifteef kon xam-xam bi yàqutoon digga doxutoon digga ak sëñ bi ci ci bu dee alal képp képp képp am alal ci moom doon na yem ndax suufam si képp doy na alal suufam si képp doy na alal quarante mu il képp doy dañuy wax ne bi mu nekkee fii ci Mbàkke Kajoor boobu jamono ji mu melu ni mu mel boobu saa ñu penc bi da ngay da ngay def ne tey ab marché la da ngay tey ab jala ndax ñu bari ñëw di ko saare si foo toog foo xool si ñu toog kee yor ginaar kee toog yorum xara kee yor bëy kee taw yor gerte kee taw yor ñebbe kee yor yu sëb ne yor pepp ñëpp day jal jalaat ñëpp di xaar bi ba jox ko kon moom alal ci moom la ci moom la mën a yem waaye alal alam jooju gi sukkuwut ndax dafa jàppoon ne moomu ko Sëriñ Tuubaa ko moom kon doxutoon digganteem ak ñàkk kilifteem doxutoon doxutoon digganteem ak ak ak bañ bañ bañ jëfe bañ jëfe ndigal bu dee mbooloo tam kenn ëpp lu ko bu dee mbooloo kenn ëpp ko bi Sëriñ Tuubaa demee radiyallahu ta'ala anhu ginnaaw sëñ Tuubaa képp maam Cerno Birahim mbooloo yi amutoon ci Sénégal ndax boobu mooy la mu yëpp waaye mbooloo mi liy bari bari dox toon diggante nangu kilifte kon képp ci maam Cerno Birahim war ak at kon wet goo ci mën ajoo war nga woore ta nga ñàkk nga ñàkk kilifa nga ñàkk kilifa mbooloo mu bari pour tax nga ñàkk kilifa xam-xam bari pour tax nga ñàkk kilifa surtout ñun ñi xam ne borom xam-xam ñu wax ñu wax ni borom xam-xam lañ ndax léegi jamono ji ku jàng lax dayu rek wala nga ko fi saxla daal di sàggal li baax doo damay faral di fàtte toujours ne sëñ Abdou Khoudoss dama koy faral di tudd lu bari ndax léeg-léeg dama dama mas a ñëw di vacance chargé ji ko mu ne ma bu fekkoon ne ñii nga mel ci taalibe nangu nangu kilifteef ñu génn bitim rek def nañ ko kon kenn du bañ xale yi jàng waaye li ëppale taxoon mag ba du bañ xale yi jàng mooy ku fa saa di génn ñëw rek boo ñëwee bedd bëgg dindi mag ñi def yow nag loolu dalul loolu dama dama dafa maa soññ baax a baax a baax ci loolu kon ku aju maam Cerno Ibrahima nag war ngaa nangu kilifteef war ngaa nangu sax ci digal ak loo bari bari xam-xam loo bari bari alal ak loo bari bari mbooloo kon jamono doon sëkk nag royaat maam Cerno Ibrahima dama wax ne ci Sëñ Tuubaa liggéey wax ne nañ ko roy kon mel nii mel noona mel ni mbëgg moo kooku mooy mooy mooy borom daaw dafa am benn bis benn benn kilifa ku bokk ci weneen yoon ñëw siyaare Sëñ Tuubaa mun ko demal gane ji fere yi kooku dem def tournée ba tourné jeex mu ñëwaat suñu tubaab ne ko noo leen gisee muy natt li dem naa fi kër goo xam ne nii lañ jam dem naa fi kër goo xam ne duñu jaamu yàlla dem naa fi kër goo xam ne duñu nangoo liggéey dem naa fi nangam kër goo xam ne dañuy nangoo jaamu yàlla dañuy nangoo liggéey dañuy nangoo lekk mu ne ko ceerno yu bëri faati ne ko noonu mel laa mel kon kooku aji moom ku ne war ngaa nangoo sax ci ndigal te it damay wax ne ndigal bu fekkee jarlu sa bakkan kon ki ngay topp gëmoo ko maam ceerno Ibrahima jaay na bakkanam ngir ndigal jaay na bakkanam njabootam ngir ndigal keroog bi ko Sëriñ Tuubaa dem Ndar bi ñëwee ba Louga xaaju guddi 1895 boobu àll bi mel ni mu mel boobu gars yi nekk nañ ci àll bi garab yi xaaju guddi moom kopp mu àndu jóge jóge Louga dem Mbàkke bari kooku jaan na bakkanam ci digal kon kooku ndigal bala nga koo gëm dëgg-dëgg dafay jaay sa bakkan jaay na bakkanam jaay bakku njabootam ngir dëggal kon kooku royukaay bu jamono ji yàqu na waaye ñun nañ suñu diine nga xam ne jàpp suñu dañuy wax ne yàqkat yi dañuy wax suur nit kenn mënul kenn dara ba nit war topp kenn loo wax ju yàq la kon ku ne am koo topp ñi sabote wax nit dafa topp kenn am na ku ñu topp na am na ku ñu leen am na leen digal ak leen kon ku toppul kenn amul nangoo toppante te nangoo doon ay nawle te bañ ay moroom nawle mooy ki nga xam ne da nga ko teg sa kanam lu muy bañ ko di ko bañ lu muy di ko bëgg kooku may nawle waaye moroom wut wut am moroom dal dal ko waaw saa bu moroom moroom moroomante amee rek lépp taxaw ñi def njaaxum sax dañuy jël dañuy jël chef teg seen kanam sàcc si rek daf day jël kenn ko yaay fi ñu kilif topp ko mu leen di wax ñu def leen tere ñu bàyyi kon ku jëm ci diina islam kooku moo ko ma ci waral kon daal ñu ngi dellu sant sëñ Bass ñu ngi agsi sant mbooloo mi Al Wafa di wax ni nañ fagguwaat fagaruwaat laxasaaywaat waajal diwén insha allah ñaan suñu borom tabaaraka wa mu yóbbu ñu si diwén kenn bañ a manqué euh, kenn bañ a tawat kenn bañ a manqué ñu àgg ci jàmm def ko ñu ko defoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa aleykum asalaam wa wa barakaatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñoo leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla subhaanahu wa taala li ñu fi jëf ci weeru koor lépp yàlla na ko yàlla nangu te fulal na ko dana xanaa dama mënta ñàkk dagal ngant rek waaye waruma fee wax ndax e, boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo fi nekk wax nañu te bu ñu waxee li baax mooy ñu ko te jafe ji ko e, sëriñ Bachiru ñëw na léegi wax ji sëriñ ab Samad wax daaneel nii ñu di ko dégg ñun ñëpp li baax mooy bañ cee teg dara te bu ñu jógee rek jëfe ñu ko boo xoolee ba weer wi ba tey boroom xam-xam bu ne teew na fi wax ju ne waxees na ko fi ba indi fi sax ñoo xam ne ci wàllu àdduna la ñuy wax wax nañu te loolu bu ñu koy def nun ñii noo tax bëgg nu jëfe ko suñu génnee fii ku ci nekkoon na ca sax ku ci nekkutoon na ca nekk ku ci génnoon na ci dellusi loolu moo tax ñu tànn jataay bi woote ko fii ci bërëb bii nga xam ne kenn ku ne xam nga ne bërëbu borom Daaru Muxti la bërëbu Sëñ Tuubaa te mën ngaa wat ne sëñ borom Daaru si teg na fi tànkam mën ngaa wat ne borom Daaru Muxti julli na fi kon bu nu fi dajalee boroom xam-xam yu toll nii diiru koor gi ñoom ñépp ñu ñëw kenn ku nekk di nu soññi di ñu digal di nu tere li baax mooy sunu jógee fii rek nan fas yéene jëfe ndigal yooyu kon sëñ Basiru noo ngi lay siyaare bu baax di la yóbbante ci sëriñ Abbas ab siyaare ak ñaan yàlla na ko fi yàlla bàyyi te wéral ko ba mu àggale liggéeyam ak eh, yéene ay magam ci barke weeru koor yi tan ànd ko ak moom ñu ngi koy ñaanal itam Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla bàyyi ko fi ko bàyyi xelam ak kattanam ba mu àggale ay yéene boppam ak yéene magam ak yéene ay waajuram ci barke Serigne Touba barke weeru yi noo ngi ñaanal di dem eh, Serigne Mouhamadul Moustapha moom ci moo daw balla moom itam yàlla bàyyil na ko fi te ko li mu yéene moo ko xam yàlla na ko yàlla may bàyyi ko fi ak kattanam ak wéram ba mu def ko ba def ci lu kawe njortam loolu itam noo ngi koy ñaanal yéen ñi toog di suñuy kilifa muy sëñ Abdou Samad sëñ Bachiru ak ñëpp mën nag damay wax ne euh, wax ji sëñ Samad doon wax nun ñii la koy wax waaye waxulunu ndax dama seetlu ne nun ñi nga xam ne ñun leen tudde ne ay jëwriñ lañ ndax ñëpp ay taalibe lañ sëñ Tuubaa moom muy doom muy set muy ab taalibe ñun ñëpp ay taalibe lañ waaye seetlu naa ne lii sëñ bi doon wax ñàkk kilifa dafa tàmbalee am ci suñ biir nun nun ñi nga xam ne ñooy ñooy sët yi wala ñooy jëwriñ yi ndax eh, sa kilifa kilifa dong la ki nga xam ne mooy mooy si kilifa muy sëñ Bas miy toog wala sëñ Abdou Samad miy toog sëñ Abbas di kilifaam ñun ak gunu foofa ku nu gis rek nga sës ci ñun yaay suñu kilifa loolu diggal dañ ko war a def loolu tere dañ ko war a bàyyi waaye nag da gis koo xam ne day wax ne man kat sama kilifa boxut suñu abbas sama kilifa wala nangami sama kilifa wala waaw bu ko defee sa sa kilifa gi toog nga xam ne moo la mag moom la Sëñ Tuubaa wax ne waccal saxiira naa yu waqirul kabir léegi loolu tàmbalee tàmbalee naax saay ci suñu biir te muy nizaam boo xam ne bii boo ko xoolee ñëpp ci nawoon ñëpp nu naw ci kaw bëggante ak soppante ak joxante ay cër te mag ma gis ne àdduna si même ñi nga xam ne nitu àdduna kese kese lañu tey doxal àdduna baat boobu li maanaam jëf jooju lañ jëfandikoo boo demee ñi ñuy tuddi ay ay takk der donte ñaari nit ñi ànd am na ko yilif la mu wax it bu bu nee defal nangam force da nga koy def loolu boobu nun ci waa kër Sëriñ Tuubaa dong ci la amoon ci nun wala boog kenn mënul ci woon loolu nag tàmbalee naax saay kon nag nan dellu siwaat ji fas yéene doon ay taalibe fas yéene wéye ay ndigal te bañ cee xool lu nu neex bañ cee xool lu ñu naqari kenn ku nekk kay si kilifa def ko muy si kilifa moo la mag féetali cig mag moo xam bàyyi la moo xam lu mën doon jàppee ko jàppee ko kilifa la lu mu la wax na ko def loolu daal laa naa naa ko fàttali sama bokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal man de li képp koo xam ne ki yaa mag nekk fii ci kër borom daan mus wallaahi la si maa ngi lay def kilifa fas yéene koo jàpp ndax man aw ma lu dul borom daan mus aw ma lu dul Serigne Touba te moo nu digal lii te teraanga ju nu am ci ñooñu lañ ko jëlee kon nanu dellusiwaat lii sëñ ab Samad wax borom daaru kenn gënu koo doon kilifa bu dee alal kenn ëpp lewu ko bu dee xam-xam kenn ëpp lewu ko bu dee mbooloo kenn ëpp ko te teewu koo doon teewu koo am kilifa. ñii fi nekk bu dee am lu leen doy dong ñi ngi nii toog am nañ lu leen doy sëkk te teewut dañuy fokk seen mbaxana toog suuf ngir dem toppi seen i kilifa lii nu Sëñ Tuubaa bàyyi loon bu ko yàq bu ñu ko sàmmee te topp ko suñu njariñ la suñ ko bàyyee suñu lor lay doon ba ca des mooy nun waa dëkk bii nga xam ne mooy li ma waxoon ci yoon wale dëkk bii lii ñu ñuy digal ci biir dëkk bi ñu ñu koy digal digaluñ ñu ko ngir seen njariñ dañ ñu koy digal ngir suñu njariñ noonu bu ñu la bàyyil nangam bu fi def nangam bu def nangam wala jëfal nangam sa bopp tax ñu la koy def moom ñu la koy digal waaye ñoom taxul ñu la koy digal ndax dëkk boo xam ne bii nit faatu na ci nit ngir wopp ngir nit faatu na fi ngir xiif nit faatu na fi ngir mar nit faatu lu ne daj na ko fi ngir dëkk bi taxaw ba mu àgg fii nga xëy ñëw agsi ñu may la pakk nga xëcc sa courant xëcc sa ndox timit jot nga génnee sa mat matelas jàkkaarloog jant bi jàpp ne lu neex mën nga ko fee def su boobaa dangay ngay nax sa bopp ka koy tere nag mooy dalaa sim nga jëm ci kàmbu sawara mooy la fee bu fa jëm loolu dongu la waaye waxula ko ngir jëmmam moom lii nu sëñ biy digal dina ko tere li mu ñuy digal ak li mu tere suñ jëmm tax waaye jëm mi boppam taxul ndax moom man la war a nekk kon nag sëñ Basiiru sëñ Abdou Samad yéen yi nga xam ne yéen fi nekk nun daal noo ngi leen di xamal ne nun fas yéene nanu fi nu borom daaru mu ci bàyyi woon sëñ Tuubaa bàyyi nu fi insha allah rabbi fas yéene nu nekk foofa di sant waa wafa yéen dey li sëriñ Tuubaa waxoon maam Cerno Ibrahim yéen a ngi ci muusika bil ilmi wa bil ahmaali moom boo demee ci wasiye boobu boo ko jàngee loolee mu ko waxoon lépp ci leen ci loolu ngeen nekk kon nag noo ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla neen yàlla dëgëral bàyyi leen fi mbay leen kattan te yokk yëf yi te ñuy teew tey déglu te fas yéene jëfe eh, ndigal li liñ fiy dégg lépp ci ay waxtaan bañ ko tàmbalee ci koor gi ba tey band yaa ngi fi ku ci nar a dem ba nar koo fàtte boo jëlee band dégluwaat ko danga fàttali ko kon yéen li seen maam digle woon yéen a ngi ci ñun ñun ñi ngi koy digal nag yàlla na nu am eh, dégg ak topp maa ngi nuyu ñëpp lu sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf euh, Serigne Abdou Aziz ci kaddu yu am solo yi nga xamante ne moom yëkkati toftal ko ci kaddu yi nga xamante ne moom la Serigne Abdou Samad Mbacké yëkkati xam naa ne ngir njëkkante waxtu rek dañuy jox kaddu gi sëriñ Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khoudoss yi nga xamante ne mooy yëkkati kaddu yi nga xamante ne moo bàyyi ko ci Serigne Abbas yi nga xamante ne moo fi toog toogaayu borom Daaru Muxti tey. te liggéey bi ñu koy am ci ndigalam te naka jekk mu daan ànd ak ñun ci tëjtali indi fi ay kaddu yoo xam ne kaddu yi dénkaane la kaddu yoo xamante ne day bàyyi ko bi kon ñu jox sëriñ Bassirou Mbacké mu sëriñ Abdou Khoudoss mu yëkkati kaddu yooyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yi maa ngi leen di nuyu xam naa bala may sori damay ñaan njëggal ci li nga xam ne moom a gàllankooroon ba ma yéex a waaye su ma ko jégaloo ba noppi te réewul nag mu seereel leen ni dafa am lu ma dogu ci sama xol ne fépp fu ma war a teew fu nekk bu fa sëriñ Abdou Samad teewee loolu contrat la bu ma jàpp sama digg ak moom doy na ma ci te wee dana weesu sax fa ma ci waroon a yam moo tax bi ñu nekkee ci barab yi te ma dégg muy wax dama ne waroon na ma mën a jàll sax tàyyi faa jaarati ndax bu fa teewee rek teewal na fa ñun ñëpp di ko tàmbalee ci sëriñ Abbas ba ci suuf ndax matale na ko ci wet yépp may nuyoo ci tuuru sëriñ bi sëriñ Abbas waaye jàpp naa ne nuyoo boobu dañ koy boolewaat lépp lambaale ko ci sëriñ Abdou Samad na ko defoon ci njëlbeen gi mu defewaat ko noonu ci mujj tey ñaan yàlla sunu boroom mu may noonu fekkewaat ko déwén yu baree bari di rafetlu bu baax liggéey bi nga xam ne moom ngeen di liggéey te bis bu nekk bu ñu teewut ci jataay biit ngir xam ne am na ñu fi teew teewaale ñu fi nopp yi moom mi ngi jël li mu war a jël fu nekk bis bu nekk dañ ko topp ba mu jeex ba tax na ni ko sëriñ Abdou Samad waxee ci kaw li fi mbooleem li fi daje ci ay marajan defe naa noonu nga ko waxe booba ba léegi muy ren ak yi ko jiitu day wone ne liggéey bi teg nañ ko fi ñu ko war a teg fi ñu ko war a teg mooy lan moo di jàllale risaale bi nga xam ne mooy ba borom daaru mooti ak ndigal li nga xam ne mooy ndigalul borom sëriñ Touba ci borom daaru mooti te ni ngeen koy defee itam mu nekk loo xam ne am na solo lool ndax buñ ko yemale woon ci dëkk bi yéen ñi koy seq man ngeen ko bis bu nekk ba at ba weer wi jeex man ngeen maanaam ngeen ko seen bopp waaye yaatal gi nag ba ñu xam ne maanaam euh, sëriñ Touba daf doon yaatal ci biir diine ji yaatal ci biir bokk gi loolu moo moo waral lépp luñ koy askanale rek ak kër guñ koy mën a askanale ci biir kër ci yoonu sëriñ Touba war na mën a doxee nii mooy génne ko yaatal ko ba dugal ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo bokk ci yoonu sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal diine lislaam te bu ñu xoolee bu baax xam nañu ne loolu mooy liggéeyu borom Daaru Muxti ci kër sëriñ Touba muy liggéey bi ci gën a fés ne ay liggéeyam ci moom kenn mënu koo takk kenn mënu koo lim waaye boobu dafa bokk ci liggéey yi nga xam ne moo gën a fés ci yi mu ko doon liggéeyloo keroog bi nga xamee ne mi ngi jóge Touba di dem Mbakke Baari yóbbaale gi mu ko yóbbaale Mbakke yi loolu bokkoon na ci lii moo taxoon bàyyee sëriñ Mbakke bu sa Touba. mu nekk ci wàll wa ca des borom daaru muuti nekk ci wàll wi ci des sëriñ daam abdurahmaan loo nekk ci wàll wi ci des moo tax di bii dafa bokk ci liggéeyam yi nga xam ne mooy yi gën a yiñ ko gën a mën a wute ngërëmam ndax am na ci ngërëmul sëriñ Touba ba noppi te meññet mi mi ngi feeñe ci gën a feeñe ci sëriñ Muhammadul Fadil ci kàddoom yooyu nga xam ne moom la wax ne sunu baay Cerno te moom laay wax ne sëriñ Fadilu dafay meññetum liggéeyu borom Darou Mouhty ndax ni mu ko feeñale te ku xam dara ci Cheikh Mouhamadoul Fadil bu ko waxuloo nit te ñu ne jaar na ci loxo boroom daaru Mouhty bu sol ci moom li mu ci sol da nga xam ne kon kii meññet la ci kër borom Darou Mouhty kon nag liggéey bu mel nii su fekkee ne yàlla baaxe na leen ko alwafa di ay bokk yoo xam ne mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko seq ñëpp kenn ku ci nekk la ñu xam ci moom moo di ak yéwénal aku rafetal loolu nag yéwénal gi ak rafetal gi lu kenn man ñaar ñoo ko ko daq lu lu ñaar man fukk ko ko daq ndax man ak tële fi lañ ko fekk ba tax na kon su fekkee ne mbooloo mi noonu la ñu ànde day tax rek lu mu rafetoon muy gën di rafet ne leen leer ne ngërëm li moom jàll na bu yàgg ci sëriñ Abbas ni mu jàlle woon ci ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ñëpp ci wakkar borom daaru mooti seen ngërëm na mën ngeen a waat ne làq ngeen ko ndax nit ki bu fekkee ne li nga xam ne amut lu may moom su fekkoon ne dafay garab gu mu jëmbat te bëgg mu màgg bis bu set nga jël sa siwam ndax di ko ko suuxatal xam na ne yow mii yéene nga ko yéene nga ko ndam yéeme yéene nga ko ab liggéey yëpp jàll mooy ku fi nekkal borom daaru mooti ku nekk lii ngeen di def moom ngeen koy defal door a àgg ci borom daaru mooti door a àgg si nag ci dëkku daaru mooti bi ci boppam ak ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci daaru mooti su fekkee ne dañoo bëgg a jariñoo loolu nag la cay baax mooy di boole dégg ak topp jariñoo gi mooy euh, li sëriñ Abdou Abdul Aziz doon doon junj léegi dafa dellu ci sëriñ bi loo waxoon daaw ci benn ci ayit yi mbubb mi duma ko sol sama jur solu ko duma ko sol sama kenn ku ma jege solu ko duma ko sol ba tax na nu bu la neex yi nga xotti ko bis bu yàlla dogalee mu agsi ba ba nga di ko sol boo tuut dana mel ne ku rafle loolu bokk na ci li nga xam ne moom nga waxoon fii daaw beneen ba mooy mbooloo moo àndal di liggéey bu nekk nga fexe ba bis boo xamee ne téye nga sa loxo mu mel ne ki nga xam ne da ngeen a ja di yanu am néeg boo bàyyee sa koñ ñëpp xam ne bàyyi nga téye loxo gi mën naa nekk ci coobare nit ki téye loxo gi mën naa bañ a nekk ci coobareem ndax doomu aadama day man di tële te yàlla lu ko neex lay def kon nag fexe ba nga nekk ca na nga ca war a nekk nii ngeen àndee ci biir mbooloo mi kenn ku ci nekk wet gam ca war a féete mu di ko doxal ñu xam ne kii kat ndax mënees naa am wutaatam loolu la ñuy laajte ne wutaay moom mënta ñàkk moom kenn ku nekk am na benn boroom xam-xam boo xam ne ab médecin la dafa am am malaatam daf koo yóbbu ci armeel yi bi mu ko xoolee ba xam ne moom yaramam dafa sonn mu bëgg koo faj da ko yóbbu ci armeel yi mu ne ko kii professeur diw la woon kii diw sàngam la woon kii boroom alal la woon kii diw nangam la woon bañ kii te kenn ku ci ne ci ñoom bi mu fiy jógee jàppoon na ne la mu nekkoon bu fi jógee kenn du ko fi mën a wuutu te kenn ku nekk ci ñii ma la wax ba mu fa jóge ku ko ko dàq fopp moo ko wuutu gis nga nag li la dal mooy da ngay dal lu noppalu boo noppaluwul noppalu gu ndaw gi dangay ngay def noppalu gu mag gi lii mooy noppalu gu mag gi te lii ñii ma la wax kenn ku ci ne defoon na ne kenn mënu koo wuutu te kenn ku ci ne kala ko ko ko wuutu moo ko ko dàq kon li nga xam ne moom la lañu war a jàpp ci wàllu woowu mooy fexe ba mbooloo mi boo ci nekkee nga jëfe ci noo xam ne kenn ku nekk dana xam ne yow mi matale nga bis bu yàlla dogalee nga xam ne nag ak ak nattu am na su boobaa itam keneen ka ka lay day tax rek mu yokk ko ngóora kon ñu jàpp loolu bu baax te xam ne itam nag fii ñu koy defee muy ëttu borom Daaru Muxti muy ëttub Sëriñ Tuubaa Sëriñ Kosas Lo daf daan wax naan borom Daaru Muxti Daaru Muxteem gii mooy mooy pekkub Sëriñ Tuubaa pekk mooy fi nga xam ne fi ngay denc li nga gën a bëgg te loolu mooy li nga xam ne mooy li am moom mooy li ko sëriñ Touba ko sëriñ Touba may kon ñi nga xam ne dañ duñ dañ tudd di ko tudd ñu di ko ñu di ko ñu ñu ñu wane ne dañuy roy ci noonu dañuy xool ci noonu ñu moytu bu baax ne euh, li nga xam ne moom la sëriñ Abdul Aziz doon junj léegi yow mi nga xam ne yaa war a aaye ñu mañ laa fekk ci li ngay aaye laa tanha an fi'lin wa ta'tiya mithlahu aarun alayka idha fa'alta azim su fekkee ne li ngay aaye dañu laa fekk yow nga di ko def wala buñ la gisutit yaa wóor na la ne yow yaa nga koy def gàcc mënta gën a rëy loolu loolu kon day tàmbalee ci ki war a digle war a tere moom mu xam ne moom yàlla tënk na ko jëng na ko ci yoon wi la ko jëng bu war koo mën a jéggi dem fenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne dindi gindi nit ñi ci say jëf moo gën a moo gën a yomb gën a jub gën a gaaw ci gindi leen ci say wax ñu wóor leen ne sëriñ du Samad mi wóor na ma ne li muy wax fii mu toog bu génnit loolu lay dund loolu mooy li nga xam ne da ngay gindi nit ki ci say jëf te bañ leen a gindi ci say wax bu fekkee ne loolu am na rek li nga xam ne moom lanu ñu borom daaru bàyyee mën nañ koo sàmm te incha allah du nu du nu ci am kersa mukk rawatina bi nga xamee ne sunu kilifa yu baax yi nekk sunu kanam loola rek mooy sun mooy seen bëgg-bëgg la ko tàmbalee ci sëriñ Mamadou Awa Balla mi ko njëkk a wuutu si tey ci sëriñ sëriñ Abbas bi yal ko yàlla may kattan ak wér ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal borom Daaru Muuti ak ñi yaakaar borom Daaru Muuti yëpp ak ñu ñu bokkal diine lislaam ji yëpp kenn ku ci nekk la nga ci bëgg sunu borom defal la ko yàlla may leen kattan ak wér waaye noonu nga xam ne noonu lañ ko daan doxale loolu rek mooy li nga xam ne mooy li fi nekk yaatal gi nag yaatal ko bu dugal ko ci biir diina lislaam ji ñu bokkal lislaam ji yëpp it lool yi day di beneen bunt itam ndax jamono dem na ba toll foo xam ne am na fu ma ko doon wax barki démb alquran day wax ne wala tasubu alladina yad'una min dunillah fa yasubul adwan bi xayri ilmin boo fekkee ne danga saaga way juru jàmbur su fayoo yaa saaga sa way juru bopp xam ne ni ngay defee dafa baax te yi nga xam ne mooy jàllale wax yeeg defin yi ci jamono toll na foo xam ne am na ñoo xam ne nu leen neex lañ cay waxee nu leen neex lañ cay defee te loolu su boobaa itam keneen ki nga jàkkaar lool faw mu wëlbatiku fayu ndax fu ñu jaar rek la kenn moomu ko tëjuñu ko ña ko moom lañ ci am rek lañ am soxla léegi su fekkee ne loolu am na bu ñu moytuwul danañu dem ba li mag ñi doon defar ak ak ak di ko taaral ñi nga xam ne ñoo ñu mujj ñi danañ ko tilimal danañ ko ñaawal kon lii ngeen def nga xam ne xooluñu ci ku bokk fenn tariixa sàngam ak tariixa sàngam day beneen liggéey bu am solo ba xam ne ak benn la la ak jegeñal la jegeñal googu feeñ na ci am na ci dama takkatul bis bu ci doon waaye ki nga xam ne teewoon na te te mu dëppoo bis boobu lii mel ne lii may wax feeñ ci benn réseau ci réseaux sociaux yi dafa mel ne da ngeen a taxaw weddi la nga xam ne moom la waajoojee wax te jaaru leen ci aw turam ndax invité koo xam ne bokkul ci tariqatul muridiya mu nekk ci ëttu borom Daaru Muxti di wax lu jëm ci diine yaakaar naa ne loolu weddi na képp koo xam ne kii am nga gis-gisu xol xam ne lii kat mooy li am waaye lee aw aw niir la rek wuy jàll ñu fexe nag ba loolu dañ ko gën a moytu bu baax a baax ci kaw kenn ku ci nekk loo ciy wax ak looy def lu nekk nga xam ne yow li nga wax kat sànni nga ko ci jaw ji ñëpp mën nañ ci joti kon loolu yàlla nay doon lu baax te nag lépp loo xam ne lii luy jegeñale ay xol la moo xam ñi ñu bokkal borom daaru mooti la luy jegeñale ay xol la moo xam ñi ñu bokkal sëriñ Touba la luy jegeñale ay xol la moo xam ñi ñu bokkal diine ji la loolu lépp ñu di ko moytu ndax it am na ñoo xam ne su fekkee ne xamuñu woon bu ñu jaaree fii danañu xam bu ñu dégloo danañu xam danañu xam ne mbir yi kat ndekete ëpp na dayoo léegi jéggi na dayoo àgg na foo xam ne fii ku moywul danga nga xëy taal am réew te doo ko yëg danga nga xëy tasaare ay bokk te doo ko yëg da nga tilimal diine te doo ko yëg ndax yan ñuy wax adi ci am yoo xam ne jëruñu tontoonteel jël ñu delloonteel te ñi ci ëpp doole ca jay ña cay wax ca biir seeni njariñu bopp la ñuy séentu biir wax ja ba dugalaale ca ñeneen ngir ñoddi leen ci seen biir ndax ñu mën a wax ba feeñ loolu dafa mat a bàyyiwaale xel bu baax a baax dafa am ñoo xam ne seen njariñu bopp lañ cay wut di ko xool te bu buñ ko buñ ko bu ñoddee ñeneen ñi daal leen may aw tur ñu ne waaw ñu tudd leen dafa am ñoo xam ne loolu lañ cey lañ cey lañ cey wut waaye loolu lépp rek bu ñu tënkoo ci e, ndigali sëriñ tuuba ak ak li nga xam ne moom la fi borom Daaru Muxti bàyyi te sëriñ Mamadou Awa Balla dundal ko mu jaar ci sëriñ ab loxo jaay ci jaar ci sëriñ Cheikh Khady ba ci sëriñ Abbas tey ji ak ñi ñu ko bokkal ñëpp xam nga ak xilaafa dafa nekk loo xam ne dafa fés waaye mboolem ñi nga xam ne ñooy doomi Serigne Touba te doonuñu woon ay xalifa ak ñi nga xam ne ñooy doomi borom Daaru Muxti te doonuñu ay ay xalifa kenn ku ci nekk liggéey nga ci biir yoon wi liggéey loo xam ne mboog liggéey bi nga xam ne moom la xalifa yi liggéey ñooy rek ndax day bay mottali di di taaral liggéey yi nga xam ne moom la xilaafa gi di di di liggéey waaye nag adresse bi dañ koy jaarale ci ki nga xam ne moo nekk ci kanam mboolo bi loolu rek lañ koy lañ koy waxee waaye kenn ku nekk ci ñoom liggéey na ci noo xam ne. bu buñ la buñ ko génnee tegal la ko ne rek danga xam ne bu ñëpp royoon ci moom it lépp bu baax kon loolu mooy li nga xam ne buñ ci tënkoo rek ci ndigal yi borom daaru Moti li nga xam ne mooy li mu jëlee ci sëriñ Touba ndax li mu jëlee ci Serigne Touba weesuwul mu nekk taalibe xaqan boo xam ne bii dégg naa sëriñ bi mu mu koy tudd léegi bi bay jëw borom daaru Moti ak li mu xam ci li mu xam ci digganteem ak boromam. borom daaru mooti ak li nga xam ne mooy cër bi nga xam ne moom la ko sëriñ tubaa sedd sëriñ tubaa jaral ko aku njabootam muy fanaan ci bitti mu jaral ko muy fanaan ci ay taati garab mu jaral ko ñàkk bakkanam aku njabootam dégg naa ko léegi yàgg nañ ko wax waaw loolu kooku bu dee sunu royukaay nun nun war a def dafa am laajte boo xam ne dana war a taxaw laaj ko sunu bopp nga xam ne bu ko keneen sañee it nun ñi dëkk daaru mooti sañu nu ko waruñu koo sañ ndax bu nu ko bu nu bu nu defee lu bokk teg li borom daaru muuti doon dund ci sëriñ Touba rek dafa mel ne kon war nanu borom daaru muuti dafa am loo xam ne lu ñuy tudd ay sentinelle ay garde yoo xam ne dañoo war a taxaw doon gardien yoon wi waa daaru muuti am na loo xam ne bu ko gisee te muy loo xam ne lu tëgwut ci lool ci ci ci dëgg la loo xam ne li bokkul ci yoon wi la bu taxawee di ko dindi wala ñu di ko defar sax waruñu ca xaar ku nu woo wala ku nu ci wax dañu war a xool war mooy borom daaru mooti ci yoonu sëriñ Touba xool loolee lu ñu ca waxee nañ ca defee mu mën a mu dëppoog lu mel ne li ma doon wax ne waxtaan wi nga xam ne dëppoon na keroog ak bis bi nga xam ne am na benn waay bu wax loo xam ne xaw naa jaxase ay ay ay ci biir réew mi kon loolu mooy li nga xam ne ci la ñu war a teg suñu tànk suba ak ngoon di ci xëy di ci gontu te fas yéene nag waxtu bu ñuy xëy bu nekk rek nu am ngërëmul sëriñ bi bu tefee suñu xol ne ngërëmul sëriñ bi la ñuy wuti rek loolu mën na nu amaale ci diggante bi lépp loo xam ne lii luy luy defar la damay gàttal ci ne sunu xol sedd na bu baax ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen def ba ñu tàmbalee weer yi ba léegi moom ngeen def ba ngeen tàmm ba ñu tëralee Al Wafa ba léegi waaye gënati nañ cee bëgg bi nga xamee ne barki démb waa ngi koy wax sëriñ Abdou Samad ma ne ko teew gi ci barab bi dafa am solo lool ndax li ngay teew ak bokk yi ngay àndal di fi teew dafay soññee beneen soññee lay doon boo xam ne ndax nit ki nag kuy bay ci toolub jàmbur war naa xam ne yaa ngi bay ci toolam mën a tax nit ñi gën cee sawar te xam ne seen diina la ñuy topp seenu taalibe la ñuy gëstu royu lañu la ñuy def waaye nag gën leen cee nampatal ñoo xam ne lii kat kii kat li nga wax léegi dem nga ba sa énergie jeex nga war a mën a dallu ba noppi nga wëlbatiku jënde ko ko xam nañ ne loolu lu ko jar la loolu mu doon loo xam ne sëriñ bi lu ñu yëg la lu ñu lu ñu lu ñu naw la te sëriñ bi muy muy sëriñ Abbas ku ko xam ku nekk xam nga ne xam-xam moom lu ko itteel jubbanti lu ko iteel la am ngërëm ci borom Daaru Muxti li ko itteel la te bi mu toogeeg léegi wane na ko mu teg ko ci fa nga xam ne mooy mooy ñi ko jiitoon fañ tegoon seen tànk rek ñu ñaanal ko yàlla ñun ñëpp rek ñi nga xam ne na la ko bëggee mu amee ko noonu te lanu ca war nu itam nu ànd kook moom ma ne ko noonu te yàlla mi nga xam ne ku mu dimbali nga dimbali ko ni ko sa way jur daan waxe sëriñ Mamadou Awa Balla bu fekkee ne yàlla dimbalee na la moom mi nga xam ne moom bu la dimbalee duutoo soxla ndimbalul kenn yàlla nu dimbalil boppam te lépp loo xam ne lii def nañ ko ci njuumte ci weeru koor yi sunu borom jëggal nu ko lépp luñ ko luñ ko ñaan ci biir weeru koor bi alxuraan yu ñu jàng rakka yu ñu taxaw tàllal gu ñu tàllal suñu suñuy loxo jëmale ko ci moom lépp mu nangul na ko lépp loo xam ne lii luy nuru xeetu xeetu bakkaar la ak bu ak wet gu mën a wet gu mën a génne nag ak nu mën a toll mu rëy bu ndaw mu jëggal na ko lépp lu war a dox suñu diggante suñu biir nunu neen kenn ku nekk jëggal ko moroomam te sakku mu jëggal ko ko te suñ ko defee itam suñu borom dana nu ko defal nu xam ne noo ngi ci ëttub ku sell ci ëttub ku sellal ëttub ku am ngërëm ëttub koo xam ne ku bëgg ngërëm man koo am ci moom ëttub koo xam ne kii li mu am ci Serigne Touba kenn amu ko ci moom kenn fekk ko ci ci moom kenn mosu cee mosu cee weranteeg moom kenn mosu cee tollolonteeg moom xanaa bu ñu ko dee wax kay léegi tey la bi nga xamee ne dañoo jël histoire yépp kenn ku ci nekk tëgg ko nu mu la neexee jox ko ku mu la neex waaye loolu terewul nag lam ci am dara mënu koo soppi dara mën mënu ko faa jëlee ndax ku munta indi dëkk bu mel ne daarul mooti gi ku munta indi dëkk bu toll ne daarul mooti gi ku munta indi sëriñ Tuubaa ne la maa ngi dem téyal ma njaboot gi ba ma ñëw ak lépp lu fi nekk ku munta am loolu mën la soppi histoire borom daarul mooti te loolu mënul nekk kenn kenn mënu ko ku munta am sëriñ Tuubaa tukki ba ñëw bi mu dikkee mën ne la ndax yow lii dangaa am loo jàpp wala ak maandu la loolu ku ko amut mënu am li borom daarul mooti am kon li mu am moom dangu moo ko am daga moom dong moo ko am nag nu ni askanali ci moom ci doom ci taalibe ni mu ko daan waxe ñun ñëpp di ay taalibe kese yàlla nu yàlla may nu am ngërëmam te xàll wi mu xàll ci yoonu Serigne Touba buñ ko jàdd mukk nu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan yàlla sunu borom mu jëggal nu may balu àq ñëpp di baal àq ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, Serigne Bassirou ci kaddu yu am solo yi nga xamante ne moom nga yëkkati te yëkkati ko ci turu Serigne Abbas. ñi nga xamante ne moo fi toog toogaay borom Daaru Muxti te muy kàddu yoo xamante ne kaddu yu jot la kàddu yu matale la xamaan yàlla nañu yàlla boole rek ñi nga xamante ne dañuy dégg ay wax topp la ci gën a rafet ñuy fetli rek kàddu yu ñaan yi ñaan yàlla kàttanal la ba li nga xamante ne moom la la suñu borom yan nga mu téeñal la ko nga àggale ko fa sa njot di jot suñu kàddu yi cant yi rek ci ànd gi nga xamante ne moom nga ànd ak ñun ci liggéey bii nii ndax umpale wuñ ne euh, ñëwoo ci jataay yi waaye nag yaa ngi koy topp topp goo xamante ne loo ci gis lu mat a joyanti da nga woote wax ne nañ ci joyanti nangam loolu nag li mu firndeel moom mooy jàppe woo ko ne euh, seen yëf la waaye da nga koo ne sama yëf la loolu nag yàlla na ko yàlla yàggal yàlla na yàlla kàttanal xam naa li ñuy def rek mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Mouhamed Mbacke mu sëriñ ko Samb Jamil mi nga xamante ne mooy wax ci turu mu assasa bi su ko defee mu yëkkati ay kàddu yu cant yé jëme ko ci ñi nga xamante ne ñoo jàpp ci liggéey bi. sëriñ Abbas di ko jaar ci ba Basiiru moom sëriñ Abdou Khoudoss ñu ko fi teewal di ko jot li kàddu cant ndax noonu kat ak njabootam lañ mu nga ko waxee rek di ko bayal ci toolam bi di yëkkati kàddu yi cant di la ko jox itam di la sant bu baax ci teewaay xam naa bu fekkoonte ne ba bi tàmbalee ba léegi jataay bii rek moom la moom lañ fi def itam daanaka doy na sëkk ci ndénkaan yu am solo yi ñu fi dégg ak jubbante yi ak orientation yi loolu ñoo ngi ci am mbégte bu baax a baax a baax cant gi xam naa ne dañu mën a tudd ñëpp waaye sëñ Abdou Samad moo tax sa boppam limaan koy jagleel ak cantu boppam mu mel na ne buñ ko sante itam sant nañ kilifa yëpp sant nañ mbokk yëpp bala ñoo ñëw ci yëkkati kàddu yi cant yi ndénkaan ak soññe yi nga xam ne jaar na te Al Wafa ci ay tomb ndax dafa am solo tomb bi nga xam ne suñu Abdou Samad moom la tàmbale woon muy solo si nga xam ne moom la xam-xam am ndax sëñ bu mag bi bi muy jàmmaarloog noon yi dafa tànn dafa tànn ngànnaayal xam-xam doon koo xeexee ñoom mu soññeetu bu baax a baax wax ne kuy dimbali nit wala kuy xeexal nit ngànnaay lam tànn da ngay fexe ba am ca lu baree bari mu soññee ci soññee yu am solo ci xam lu ko ak nangu ko xamle loolu ba lañ cee sore dañuy profité ci jot li loo xam ne waroon nañ di ko wax ba jotaay bi tàmbale ba léegi bu set ñu wax ko te mooy xam ngeen ne Cheikh Mouhamadou Mountakha bi mu toogee bokk na ci li mu yeesalaat woote bi mu yeesalaat te ko lool mooy taxawalaat ay daaree xam-xam yoo xam ne day tàmbalee na ko waxee ne ay kàddu boppam day tàmbalee ci suuf ba ca ñoo baxtan la noonu la ko waxee woon te ñam ko dénk ku mel ne Cheikh Ahmadul Badawi di wax ne war nañ fu ab jataayu murit nekk ñu fàttaliwaat ko wax ne liggéey boobu liggéeyu yoonu murit wépp la te ku nekk war na cee jàpp loolu day dugg rek ci euh, fonk xam-xam bi nga xam ne sëñ bi doon nañ doon nañu soññ léegi euh, rawat na Cheikh Mouhamadou Bachir wax na itam ne xam-xam moo nekkoon muhimmatu Cheikh nu Faati wala boog bokkoon na ci yi ko sëriñ bi feet la woon yi gën a fes kon kuy askanu ci moom wala nga yewoo ci ab jataayam war nga ko jox fulla lool boo tax mu asrofa ci soññee yi nga xam ne dégg nañ ko fi ñu ngi gën a fëddali seen taxawaay di gën a takkaat seen laxasaay ci dundalaat xam-xam waaye ci tasaare ko tasaare itam ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi ci boppam soññee yi nga xam ne jëm nañ tamit ci wormaal suñu kilifa yi ak topp seen ndigal ak dëggal suñu taalibe loolu tamit ñoom ko jàpp nañ ko ci waxtaan wi ak jegeñal bi nga xam ne kuréel gi mi ngi koy jegeñal kër diine yi loolu tamit dégg nañ ko ci soññee yi nga xam ne Cheikh Mahamadou Bachir soññee na bu dee ci wàllu tomb yi nga xam ne jaar na fi eh, bari na lool waaye yenn yi ci wàllu askan bi la jëm dafa nekk ay mawaadiyan ijtimaaiya yoo xam ne yuy defar jikku la yoo xam ne yuy tax njaboot yi mucc ayib la yooyu jaar na yeesalaat ay dégg-déggin yoo xam ne jamono dafa dem ba déggiin yi mel ne lu jaxasoo lu mel ne mawdu lu mel ne laysa laysa kullu jadidin bidaatu bu lu yees rek nekk ñu jàppee ko biddaa boo xam ne dañ ko war a wacc lu mel ne alwasatiya nga xam ne kuréel bu nekk day jàpp ne moom moo nekk ci dëgg-dëgg lislaam lu mel ne mafhumul jihaad ci fikru suuf yi loolu ay mawduu la yoo xam ne laj na saqaafiya bu alwafa tànn na ko tànnin woo xam ne du hasard dafa xool ay tomb yoo xam ne jamono daf koo laaj ci tànn nañ ci ay mawduu ci ëpp solo mooy bi nga xam doon na wax ci tawat jooju nga xam ne ñu bari solo na leen te mooy ñi nga xam ne ñu am jafe-jafe ci liy segg seen deret wala seenu ndox ci wàllu environnement nga xam ne mooy dëkk dëkkaan yeeg li ko wër loolu démb rek def nañ ci waxtaan woo xam ne euh, ko teewlu rawatina kilifa yi mel na ne mën naa defar lu baree bari ci wàllu koom-koom itam fàttewuñ ko ndax waxtaan nañ ci lu mel ne al waqf al islami ak yeneen moo dox yoo xam ne jataay bi mayewul ñu tudd ko eh, sëñ bi daal ñoo ngi wan ne ñun ko suñu xol seet na lool ci kàddu yi waaw gën nañoo gën nañoo xam ne eh, li ñuy def neex na leen kon nag ñoo ngi sàkku ngeen jokk ñoo ñaanal suñu borom doon la ñuy taw feex ba ñu def ci lu kawee suñu njot cant yi cant gi tamit ñoo ngi sant mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi doon teewee waxtaan yi ci teew ci barab bi ak ñu ko doon déglu ci rajo yi di sant mbooleem ñi nga xam ne dañoo nekk ci alwafa nekk ci lijaan yi ci commission yi moo xam laj na li wax laj na xiyaada nga xam ne ñoom ñooy jël ay dogal eh, kër sax ñu tudd tur yi waaye laj na almaaliya nga xam ne lépp luy tax lii ñuy def mën a sotti te loola eh, am am di ko def loola ñoo ñoo ngi leen ci sant bu baax di sant képp ku leen ci jàppale xam nañ na ñu baree bari def nañ ci seen ñaq ngir euh, jëmi suñu borom subhanahu wa taala ak jëmi borom daaru mooti ñoo ngi sant ñëpp lu ci waaye def muy tuuti wala muy lu bari sunu borom xam na ko yàlla na ko sunu borom fay inna allah la yadiu ajra man a amala bu dee laj na tanzime bi nga xam ne ñooy taxaw ji euh, barab bi nga xam ne ñoo koy nose ba lépp jaar yoon ñoo ngi leen sant bu baax a baax na sa saxaafiya nga xam ne ci njiital sëñ Ahmadou Mbacké nga xam ne mooy jokkoo ko waxtaankat yi ñenn ñi jóge ba Louga ñenn ñi ba Fatick ñenn ñi Dakar fu nekk borom xam-xam jóge fa ni waxee léegi loolu tamit jokkoo boobu ak coono yañ cay jànkonteel yépp alors fa ñu ngi ciy leen ci sant bu baax euh, commission bi nga xam ne ñooy wàllu technique ñoom sëñ Xaadim Seck nga xam ne lii bu fekkoon fii rek la yem naam dana am jariñu waaye nag tasaare bi ñu ko tasaare ba fu nekk ci réew mi ak fu nekk ci àdduna mën koo jox loolu Eh, laj na boobu ñoo ngi leen di sant bu baax laj na li nga xam ne laj na ijtimaaya nga xam ne eh, seen liggéey du fés te mooy buñ ne alwafa bu weesoo nasrul ilmi wal thaqafa al islamiyya dafa am i'anatul muhtajina wal fuqara loolu di loo xam ne suñu digganteeg eh, suñu borom bi nga xam ne moo xam lu nëbb la al lajna al i'lamiyya moom itam ñoo ngi leen di sant ak laj na yi nga xam ne ñooy toppatoo wàllu wàllu wàllu xasida yi ñoo ngi yees laa suñu cant ci sëriñ bi di sant rajo yi nga xam ne dañ ci doon jàpp ñoom tamit rajo yëpp xëy na mën nañoo tudd yi ci gën a fës tàmbaleek ci Darou Moukhty FM Touba Niakhène FM Benno FM Lamp Fall FM rajo yi nekk Mbàkke RFM RTS Walf FM UCAB Université Cheikh Ahmadou Bamba FM ñu leen di sant di sant waa Jant bi FM ak waa Touba TV ak Lamp Fall TV nga xam ne ñoom tamit ñi ngi doon wane euh, liggéey bu loolu weesoo kon euh, ñoo ngi ñaan sëñ bi ngeen doon la ñaanal bu baax a baax suñu borom may ñu fekk ko ay at yu baree bari ñoo ngi jéglu baax kàddu yi lu ci dëng ñu jégal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf euh, sëriñ Mouhamed Mbacke ci leeral googu nga xamante ne moom nga doon andi te mu jóge ci kuréel gi muy ay kàddu cant yoo xamante ne kuréel gi yëkkati na ko jëmee ko ci képp koo xamante ne jàpp nga li jàpp nga ci liggéey bi rek ba mu antu ñu ñaan yàlla ñun ñëpp yàlla fay ñu leen xam naa li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Xaadim Mbàkke Moustapha sax su ko defee moom tamit mu indi ay kàddu yu taxaw seetlu rek ci ndénkaan yi nga xamante ne moo fi rot ci jotaay bi tey kon jox kàddu gi sëriñ Xaadim Mbàkke alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammadin al wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummati ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu leen di siyaare ci weeru tedd wi di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yu mag yi nga xam ne ñoo fi teew di sëriñ Bachiru Mbacke ak sëriñ Abdou Samad ak sëriñ Abdul Aziz ak yeneen kilifa yu mag yi fi teew yépp kàddu yi may yëkkati nag kàddu yi e, fecc li lay doon maanaam ni ñu ko waxee ci njàlbeen gi nga xam ne kilifa gi waroon a def waxtaan wi dafa teewul bi ñu waxee li ñu war a wax ñu sàkku ne rek bu ñu mënee fecc li li des ci waxtu wi ci loo xam ne day am njariñ loolu rek moo waral suñuy kàddu mu doon kàddu yoo xam ne nag dana xaw a diis lool ndax kilifa yi nga xam ne ñoom lañu toogal di ay kilifa ak kàddu yi nga xam ne sunu kilifa wax na ko fi léegi itam ci kilifteef gi nga xam ne moom la kenn ku ne war a jox sa kilifa loolu dana tax kàddu yi dana xaw dis ci ñun nag kon ñu jëfe ko ngir muy ndigal waxtaan wi nag li nga xam ne moom lañ doon moom lañ def thème bi mooy kilifa yu baax sunu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom lañu yàlla baaxe te lépp loo xam ne ñu ngi koy jariñoo tey ji ci diine ak ci lu baax ci ñoom lañ ko jëlee ñu fàttaliku leen nafar seeni jikko te royaat leen bu baax a baax loolu nag képp koo xam ne yaa ngi fii ci barabu tedd bii di Daarul Muxti daanaka say misaal doo ko jëlee fu sori ndax borom barab bi boroom daaru nekk na koo xam ne doy na sëkk royuwaay doy na sëkk nafarukaay ci lépp loo xam ne nit ki bëgg na ko ci ak mbaax ci digganteem ak boroomam wala ci digganteem ak sax àddina ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi waxe léegi sëriñ Touba moo ko waajal ba def ko muy royukaay am na xissa boo xam ne dañ ko faral di dégg benn naaru gànnaar boo xam ne dafa daan defal dafa daan defar ay satala sëriñ bi sëriñ Abdou Samad ju na xissa bi ci biir waxtaan wi maanaam naar bi dafa daan defar ay satala bi mu wëree nag ci bare bi sëriñ bi ba ñëwaat ci sëriñ bi di ko nettali la mu gis ba agsi ci borom daaru daf ko wax ne ko moom de mi ngi mel ne sa satala yi nga nga defar rek lépp lu ci waay fekk tamit lu ko neex maa ko ci def lépp lu ci waay fekk te neexu ko itam na xam ne maa ko ci def kon nag moom royukaay la boo xam ne mënees na ko joxe misaal ci bépp taalibe ak bépp jullit moom nag liñ mën a roye ci moom bari na lool mays naa roye ci moom aw fit naa roye ci moom jaamu yàlla mënees naa roye ci moom nangoo liggéey mais naa royee ci moom topp sa kilifa gi nga xam ne moom la kilifa yi doon wax bokk na ci aw fitam te képp ku amul fit doo mën a def lu am solo ci diine ndax wax nañ ko fi xew-xew yu am solo lu mel ne xare badar xew-xew yi nga xam ne xewoon na ci weeru koor wi saxaaba yi àndoon ak yontu bi sallallahu alayhi te xewaloon ko ci fit rek lañ ko tegoon te sëriñ Tuubaa da daan wax ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci lislaam bu fekkente ne suuf si nga xam ne ci la ñuy dox ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan dox ak saxaaba yi asamaan si nuy tiim moo bi sallallahu alayhi wa ak saxaaba yi bu nu góorloo rek war na noo mën a am la nga xam ne moom la amoon kon nag boroom daaru moomu képp ku ko roy ci fitam woowu dana la dimbale bu baax sama waajur sëñ ab sa dafa ma nettali ne ma bi sëriñ bi demee ci géej gi dafa am benn bis boo xam ne tubaab bi dañoo yebal ñoo xam ne dañoo war ay fas ñëw bu Mbàkke Bawol ba ñëwee ñu laajte ana kan la fi sëriñ Tuubaa bàyyi ñu joxañ leen fa nga xam ne fa la borom daaru nekkoon ba ñu demee dañ koo jiital moom muy dox ñoom ñu war seeni fas topp ko loolu nag sëñ moo ko nettali nee na bi ñu ko toppee ñuy dox di dox booba nag nee na xaftaanu tor eh, tergaal la amoon boo xam ne moom la ko ñëpp xamee moom la daan sol fu ñu ko fekk nee na ñu jiital ko ak seeni fas yor seeni fetal muy dox ba ñu wàcc ci aw xur nga xam ne mbooloo ma nekkoon ci pénc ma kenn séenatu ko ba ñu ko seenatul tubaab yi daal di soq ay bali fetal ci kaw nit ñi nag bañ déggee bali fital yi dañoo jàpp ne dañ ko rey ñëpp daal di tasaaroo daw nis tuuti ñu gisaat ñu jiitalaat ko ànd ak fas yooyu yor seeni fetal jiital ko muy dox ba mu dellusaat fa mu nekkoon kon moom ku am fit la woon koo xam ne fitam woowu lu ñu war a roy ci moom la am na bis itam koo xam ne kilifa li ci tubaab yi ñëw fi lépp dañu koy nettali ndax lépp ci ki mag yi rek lañ koy jëlee ñu wax ne dafay ñëw waxtu guddi fekk mu fatu ba mu ñëwee comme fi fekkoon ci njaboot gi di doom ci sëriñ bi kilifa gi wax ko ne ko man de mënumaa ñàkk a gis sëñ bi ndax damay dem ndar te dama ko bëgg a gis ci guddi fekk boobu fatu na sëñ boobu daal di jaare ci ginnaaw fexe ba dugg ci néeg ba mu nekk gis ko kilifa gi ñëw na fi nee na mënu laa ñàkk gis te day dem ndar ci guddi gi borom daaru daldi ne ko man de fatu naa ba noppi du ma mën a gis daal ne ko yéen nag seen ragal googu ngeen nekk man dama cee nekkut ndax man yoreelu ma kenn te tooñu kenn kon duma gis fatu naa ba noppi loolu nag aw fit lay wane te la ko may tamit mooy nekk ci la mar a nekk moo tax mu am fit kon daal xam naa ne liñ ci mën a jànge ci moom bari na ci ak ay jikko yu baax jikko yu rafet bokk na ci jikko yu yi nga xamee ne ni mënees na ko wax ci fit ba tey loolu itam ba tey sama waajur nettali na ma ko bu yàggul moo wax ne dafa am bis tubaab bi ñëw fi fekk ko ci fii ci penc bi muy fii ñu toog nii rek moo wax ne ay garabi limoŋ dafay amoon yoo xam ne dañoo meññi daal ba nga xam ne day day day day bari bay bay wàcc ci suuf tubaab bi mu ñëwee nag ànd ak soxnaam soxna si wax ne daa bëgg ñu ci limon ji na ñu wax ko borom daaru fekk nag nee na bu bu fi tubaab ñëw ñaare bis boobu suñ moodu moom daal daa nekk di waxtaan ak ñoom ak di maslaa ak ñoom waaye moom bis bi day mel ne daal day day day xaw a mel ne lu lu aalo bi bi ñëwee soxna si nag wax ne daa bëgg ñu may ko ci limon ji nee na mu ne ñu wax ko ko mu ne mu ne leen fàqal leen ko may leen ko benn doom ñu fàq benn doom limon jox ko nee na bi ñu ko joxee tubaab bi daal di làkk ne ko nee na nañ ko dolliwaat ñu waxaat ko boroom daaru mu ne nee leen nee ko nañ fàqaat beneen doom jox ko nee ñu wat ci beneen doom jox ko tubaab bi newaat nañ ko dolliwaat mu newaat nañ wittaat beneen doom jox ko nee na bu ñetteel bi jox ko xam naa mu daal di làkkaat nee nañ ko dolli mu ne nee leen ko loolu laa man loolu nag fulla lay wane ak fit te moom li nekk ci moom lépp Sëñ Tuubaa moo ko ci def ni nga xamee ne noonu laa ko waxee léegi kon nag yàlla nañu ko yàlla fayal am nañu royukaay yoo xam ne mat na sëkk yàlla saxal ñu ci xentu seeni tànk te dëgëral na lu baax dëgëral nu bu baax te sàmmono di sant suñ kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ca kër ga yépp ñaan yàlla yàggal leen fi te may leen wér te yàgg ko teewee at yu bari te daje ci ngërëmul suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Xaadim Mbàkke ci am na ko royee ci rek li des ci waxtu wi dañuy jëbal kàddu bi sëriñ Ahmadu Mbàkke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 واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi maa ngi leen bu baax di leen ziara di ci nuyoo bi ak ziara bi suñu kilifa ci jotaay tey jégalu bu baax di dogal ngànt itam ni ko suñ xarit waxee rek xëy na waxtaan bu sëñ bi ko moo am ngànt yàlla dogal ñu ne nañ mottali jotaay bi nañ mottali waxtuñ bopp bi ci des waaye li ki kilifa yi wax mat na sëkk amul lenn koñ ci yokk xamle ko Cheikh Abdou nga xam ne noo ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax kàddu yi ñu fi wax te yàgg ko fi wax kàddu soññee la yoo xam ne tax na mën naa ne mu wasatu Wafa bu dee dox ba léegi kàddu yooyu ci li ko téye ci la bokk ndax léeg-léeg nit xëy na war a nar seytaane nar koo dugg wala bakkanam man war ko man waaye bu xalaatee kàddu si bi sama di dana xam ne li ñuy nekkee nii responsabilité bu mag boo xam ni suñu fiñ cee dellu ginnaaw kon donc sant bu baax di ñaan yàlla ngeen ko dëgëral dañ ko kattanal boole kook mbokkam yu baax yépp ba ci kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ Abdul Aziz wax moom di kàddu yoo xam ni kàddu soññee la ak kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ Bachir wax di kàddu yoo xam ne mat dana sëkk xawoon naa mën a jeexal wax ji ñoo ngi leen delloo jéggi bu baax itam ci jotaay bu ko defee itam man li ma ci seetlu rek lu gàtt lay doon mooy jeexital li buñ ci accès léeg-léeg damay am yëg-yëgub ne adduna lépp fi lay mujj mooy mbir lu mu yàgg-yàgg it jeex la kon loolu it bind la boo xam ne wees na ko cee mën a jàng mooy ne borom daal moo si sëriñ Tuubaa dañuy wax ne daa wax ne adduna dafa gàtt te li muy gàtt gàtt dundu doomu aadama moo ko gën a gàtt te dundu doomu aadama li muy gàtt gàtt fi muy mane ak fi muy tëlee ku gën a gàtt nga kon góorgóorlu eh, lu lu jaadu la ci doomu bu gàtt la eh, te dund ji li muy gàtt gàtt fi muy mane fi muy mane fi ak fi muy tëlee ku gën a gàtt fu muy mane fi muy bu ci génnee li muy nelaw ak jëflante yi muy jëflante ak yi lekk yi muy lijjanti jëm këram loolu la muy jox waxtu mu jox suñu borom mu néew la te yàlla da ko bind ngir mu jaamu ko kese te itam ñu xam ni adduna moom Sëñ Tuubaa dañuy wax ne daa wax ne kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waaye def boppam mooy lu waay def rek yow lañ koy fay fa man ya'mal misqaala darratin xayran yara wa man ya'mal misqaala darratin sharran yara lu waay jëf rek di ko gis Sëñ Tuubaa daa wax ne fa kullu ma ajrahu shakhsun min amal fa sa yara jazaahu yawmal wajh gis lu mu jëf rek moom lañ koy fay kenn du jël jëfi kenn di ko jox keneen si Basiru mii yàgg na ma dégg muy wax ni moom kenn du yàlla du jaawale jëf yi te lu waay jëf rek di ko gis te kenn du jël jëf yi kenn du jëf ba noppi ñu jël sa jëf di ko fay keneen kon góorgóorlu lu mat a def la te itam Sëñ Tuubaa wax na ne daana wax ne lu ngeen am ci suñu borom rek ak lu ngeen jëf ci lu baax ne ngeen ko jéggi te xam ne lu ci kaw lu kawe ma nga ca kanam mooy lu waaye defit ci lu baax mu bañ koo gis te xam ne yàlla daraam du jeex te lu ne mën nañ ko am ci moom borom daal moo tamit daana wax ne itam àdduna lépp ci ay rëdd lay lay mujj li am solo mooy kon maanaam nga fexe ba say rëdd di rëdd yu baax mooy boo fi jógee des na rëdd ne lii moo ko fi waxoon lii moo ko fi jëfoon lii moo ko fi defoon loolu kenn mënta am ma xam kenn duñ la ko defal moom noo mën a toll rek bis dina ñëw ñu nekk li say mbir biraa wax nañu na nga fexe ba yow bu ñu lay rëddal say rëdd lépp di lu baax kon jëf ji nga xam ne moom la mu asatu Wafa jëf ak gaañ ci ne ñëpp ci xëy na ñoom kilifa yi dañoo baax rek waaye ci seen xalaat ñoom ñu rafet ak seenu taxawu ci lañ ko jëfee wala fi yàgg nañu wax ne peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca wagg kon noonu rek la demee ñoo ngi ñaan ñoom sunu kilifa yi yàlla yàggal leen fi te taxawu leen ci wet yépp ndax Daarul Muxti dinay wax lu bari ni yàlla def nañ leen tawfeex kilifa yi lépp loo bëgg ci lu baax duñ la gàllankoor te dañ la cay soññi dañ la cay sax wax wax yoo xam ni boo yaawee gaawee gis sa bopp mën nga jàpp ne da ngay da ngay jëfkat bu jëf lu rëy soññi googu nga xam ne ñoom lañ am na bërëb yoo xam ni seeni kilifa xëy na dañ leen gàllankoor ci yu baree bari yoo xam ne dañ ko bëgg a def ko duñ ko mën a def fii nag moom lépp looy defut ci lu baax ci la waaye sëriñ bi moom waxtu ne lépp looy yéene walla nga koy def ci lu baax dala ci gën a soññ waaye du la ci gàllankoor te dala ci jàppale itam ma jeexal ci li ñu doon wax rek ci wàllu kilifteef bi itam te sëriñ Abdou Samad wax ci lu am solo mooy kilifa ku ko amul amul ak ku ko nanguwul mooy mooy am ku la jële itam ci sa kilifa itam ci geneen kilifa rek dala jëme te itam adduna itam dañuy wax ne kamaata diinu tuddaanu lépp loo def rek loolu lañ lay fay misaal mi mas na ko misaal ci li sëñ bi wax ci sirkul jawaayir di mooy misaalum Seydina Muusa la wax ne suñu borom da ko mos a yebal ca wetu géej ga di ko wan maandoom gi nee ba mu demee mu làqutu ca doj wax di xool jekki-jekki am benn waay bu ñëw simmi ay yéreem dugg ci géej gi di sangu fekk yére yi def na ci xaalis yàlla dogal am benn xale bu fa jaar làmb yére yi génne xaalis ba ci nekkoon daw moom des tuut nag waa ji génn ci géej gi tombe genn gumba goo xam ni dañ ko doon doon doon dox genn gumba goo xam ne doon dox ba agsi fa bi waa ji génnee ci géej gi gis ko jàpp ne mu mu moo jël xaalis ba mu di ko wisit di jëflanteeg moom bu mujj far faat ko pañe ko kii ko ba faat ko ba waaji faat ba gumba gi faat ko Seydina Muusa nee na loolu jaaxal ko suñu borom tekkil ko xamul ko ne ko waa ji yi nga gis muy sangu ci géej gi xaalisam boobu mu yor te xale ba jël ko xale boobee baayam dafa liggéey maanaam waa ji da ko liggéey la woon amee ko xaalis ameel ko toll ci junni yaakaar naa da wax te nungu ko fay maanaam waa ji daa ameloon bàyyi bàyyi xale bi xaalis te nungu ko fay nga xam ne xale bi lii mu jël xàqam gumba gee itam ba mu daataa gumba moo reyoon bàyyi bàyyi waa ji nga xam ne moo doon sango ci géej suñu war wan ko ci ne lépp loo gis ci àdduna rek noonu lay demee mooy yàlla commande la te lépp lu waaye dafa des na ko fay dañ ko wax ay jàmbur loo ca xajamal di ko gis ci sag ay ba ci borom xool sax dañu wax ne man yazni yuzna walaw bi jidaarihi man yasli fii baytin bi alfay dirhami fii baytihi yusna bi xayri dirhami maanaam njaalo sax boo duggee ci kër def ko bis la ñëw nit dugg sa kër njaalo yàlla ku màndu la moo tax lépp loo bëggut ko la ko fay bul ko lebal kenn loolu yàgg naa ko dégg ci sëñ bi sëñ bi ñu ñaan yàlla yàggal leen fi te taxaw leen ñoo ngi dégg lu baax nag kàddu yaag jotaay yooyu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw Yeah.